3S Pro. Aja Modou Anta neuvième combat de la soirée waaw wala nga ni combat spécial bi Euh, diggante bébé bismillah ak baaba jaxal wëndëng bi ak baaba jaxal wëndëng bi borom wëndëng bi wëndëng bi moo jóge tali maam jaara tali maam jaara ka dar moo dëkk jàmm gën si kambaaw jàmm gën si kambaaw ko dar moo dëkk ceerno njaay ceerno njaay ko dar dëkk caaro yi waa caaro yi ko dar waaye xale bi mi dajeel kan lay dajeel moo danta gone kambreen gi bébé bismi mooy kan parcelle 1 ba 26 bébé bismi bébé bismi ñoom ñoo koy dar ikëri jàmbaar combat spécial de la soirée Boy Anta. day génn Baba Jaxal day génn. Baba génn na. day ñaan. Modou xanaa loolu tegtal la. wëndëng bi day ñaan. wëndëng li mu def tegtal la Boy Anta. day ñaan day ñaan day ñaan. Modou ne day ñaan kon day ñaan. loolu tegtal la supporteram yaa ngi ne le. loolu dafa bokk si làmb. Baba Jaxal a ngi ñaan. man lu ma gën ma gën a neex si Baba Jaxal keroog bu wax naan yaayam. moom rek la bëgg ndeysaan. yàlla na fekk njariñam. Modou Anta bi soo dama jooy. jël na avertissement arbitre sifflé na. waaye jar na ko Bébé Bismi dox na ci kaw Baba Jaxal Bébé Bismi Baba Jaxal Modou Anta ah Bébé Bismi daa décidé tey jàppante nan attention <laughs> waa lii lan la eh? Bébé Bismi mi arbitre arbitre daa àtte Bébé Bismi waaw mais lii lan la Modou Anta Bébé Bismi mi daa décidé tey de Bébé Bismi daa décidé mujjee diggante ak Popaay Boy Djiné Jaxal am na lu muy tekk ci tànk bi Bébé Bismi fii la mujjee moo Popaay Boy mu tànk jël bu rëy ba waaw ba mu fa jógee bëreeg waaye Baba Jaxal fii la mujjee. ñoom ñaar ñëpp fii lan mujjee bëree Baba Baba Jaxal Bébé Bismi. Anta sëriñ sëriñ nga xamante ne gis naa si Bébé Bismi tey doy na waar. dafa décidé dafa décidé. jàppante nañ ñoom ñaar yow jàppoon Baba ngi door. Baba Bébé kor na ko ma koy door mbaa du ko gaañ. Bébé Bismi baal jàmbur Bébé Bismi baal jàmbur. raak Bébé Bismi raak eh, baal jàmbur na ko mu bañ. Eh, Bébé Bismi génn na day jël avertissement. Baba Jaxal bëri na. laay laay waaw waaw ñoom ñaar ku nekk nga am avertissement. avertissement Bébé Bismi. arba si leewan na. Bébé Bismi tey décidé na de lii ba jàmm. daa décidé wàcce raam jëm si kawam. dox ci kaw adversaire lii gëj na ko. waaye la fay fekk ma ranta. moo ma jaaxal ndax wëndëng bi la fay fekk. ndax wëndëng bi dafa décidé moom tamit. waaw wëndëng bi de dawul xare. pare wul pour daw benn yoon. waaw masu koo daw ko moom Bébé Bismi. Bébé Bismi Baba Jaxal jàppoo nañ. door na ko yaa ngi door eh! attention. da door ci loos. Modou lan la. da koo door ci loos de wala la. ah. waaw ba jaaxal li mu jaaxal sax na ma daan bu leen tas combat bi de nañ bëre nañ ñu tas combat bi. avertissement. avertissement Baba Jaxal. da kaa mbëkk la ñu wax. mbëkk kon day ñàkk. kon Bébé Bismi am na victoire. bu dee da koo mbëkk Bébé Bismi am na victoire. ñàkk na disqualifié nañ ko. disqualifié nañ ko jox ba. waaw waaw duñ koy disqualifié rek mbëkk la ñu wax. bébé bi waru doon jeexee nii arbitre. arbitre kontaan nañu. bébé bi est-ce que kontaan nga. non non non non séntu ma woon lii. waaye li ngeen kontaan suma ranta. séntu ma lii séese séese. waaw dañ koy yàq kay ñaari xale nañ leen bàyyi ñu bëre. dinañ aj dinañ aj Baba Jaxal. leen bàyyi ñu bëre ay waay dinañ aj Baba Jaxal. waaw dañ koy yàq kay mu ranta yàq nañ avenir Baba Jaxal. séese yàq nañ avenir Baba dootul bëre. ay waay Baba Jaxal yàqu na bëre. ay waay aj nañ Baba Jaxal dañ koy yàq waay. ay waay dañ koy aj xoolal séese. dañ koy yërëm naa ko waay waay xoolal ma lii bokku si maaju lamb moo daan taa. ay relikam dinañ ko aj. Modou ñu waxante xale yi. xanaa laaju Liss Ndiago. Modou ba bëggee xale. wis sa manday bëgg sa mbër. wis sa manday def nii. diit naa torop. 16 ans ngay dem. ay waajile. Modou 16 ans ngay dem. Oh. Baba Jaxal tin na. Oh. gaa yaa ngay yàq ko aj dinañ aj. ay ñoo ngi sakaase waay. waay gaa yaa ngay sakaase 16 waay. bu leen suñu 16 yi. lii ndeysaan Baba Jaxal jaaxle na Baba Jaxal jaaxle na ndeysaan yàq nañu avenir Baba Jaxal Modou Anta lu mën a am Baba Jaxal yàq nañu lii maa la wax dañ koy aj. Liss Ndiago lii la woon keroog. ñaanalu ko waaye lii. waaye dañ koy aj xaalisam du fa des te ko wax. lu si ay këyit Modou Anta ba pare. yaakaar naa ne waa kër Baba Jaxal buñ laajoon Liss Ndiago buñ laajoon Liss Ndiago duñ def lii Modou xarañ loo ngi noonu di dem Modou day ñibbi ñibbi day gën a wóor balaa làmb jee jeex oh xale yi yàq nañ fii yëpp boo yaa ngi dajji seesi ba tey di sànni xoolal xoolal boo yaa ngi dajji seesi ba tey di sànni yërëm naa Baba Jaxal Kalidou wallahi yërëm naa ko lii lépp seen kaw la. non lii lépp ci kaw Baba Diakhal la xoolal booy yaa ngi daj xoolal fële. xale yi seen xol neexul. mais seen xol bu neexul am na lu leen yoon may. dëgg la am na lu leen yoon may. comme nee na Baba Diakhal dafa mbëkk Bébé Bismi bu dee Baba Diakhal mbëkk ko mën naa déposer recours. ñu kase verdict bi def ko sans verdict. mais mënoo ànd man d'accord ma ndax ñaari xale bu ñu entraîné ba toll fi ak fu làmb tollu jamono ji ak toll da nga indi woor bàyyi la ñu bëre loolu mais li ñu di arbitre def ni tey d' accord ma si benn yoon Modou Anta. Ah, lu man di xew règlement dafa sew. ah règlement dafa sew. daa sew règlement daa sew ndax lu ñu xaatim li si ay kayit ba lu mën a am Anta mooy Baba Diakhal mi dañ cee dañ cee dañ cee kii dañ cee aj. dañuy téye reliquat dañ cee aj moom ci jot. loolu moom jarutul jarul wax sax loolu moom amatul lu si laam-laame Modou Anta ah xoolal ma lii. grand combat ba ji de soq ak Franc xale yi damm nañ sees yëpp. oh lii metti na ma trop Kalidou Baba Jaxala nga woon na la toog am na luñ koy laaj mi ngi noonu toog maam Baba Jaxal en tout cas jëlal jëlal jëlal jëlal jëlal jëlal jëlal jëlal police yi yéeg nañ ci kaw ña ngay tey ngeen tey ngeen tey ngeen dee jëlal Kalidou jëlal noq yi jëlal noq yi jëlal noq yi laay nokk yi tey ñu dee ay waay yërëm leen leen oo tey ñu dee nokk ya buñ jàpp buñ jàppee kenn mu dee de daw leen daw leen daw leen ci jàpp tey nga dee oh non combat bu neex Baba Diakhal Bébé Bismi séntu ma ko woon fii non Kalidou grand combat bee ci des jeex jàmm moo fi daan Aliou Fat Fat Ibou Afia moo fi daan xale bi nga xamante bi nii mooy caatu piol bi waa kër Baba Jaxala ngi noonu kontaanuñ kontaanuñ Baba sa supporter ñibbi nañ yaa ngi jéggalu mais supporter ñibbi nañ booyee ñibbi nañ xoola boy ni ñuy def arbitre yi ñii xanaa xamuñu li ñuy def xanaa xamu leen li ngeen di def ndeysaan ndeysaan lambi baaba jaxal daa mel ni la de xoolal ba xam ndeysaan làmb ja am na ñu xam làmb ja am na ñu xam xaw ma lan moo xew ndeysaan supporters yi Baba Diakhal nee nan Baba Diakhal mbëkkul Bébé Bismi loolu moo tax ñu damm siège yi di ko sànni kon mbokk mi noonu looloo fi amoon ci combat spécial bi la temps que grand bi ñëw gars yi abonné leen police yaa ngi dàq de ay waay jéggal leen Kalidou baax na grand combat be ci des te daal